ñoom dañoo amoon ndigalu da ngay dem mu ni amaguma ndigalu sama borom. Hmm. fa la toog di xaar ndigalu boroomam tubaab bi nangul ko ci xat ba dafaa fanaan. Hmm. ba mu jugee jeewal kokki la dem. Hmm. ba mu jugee kokki Louga la dem. Louga altine ginnaaw bi mu jullee tàkkusaan la jël saxaar gi. jëm ndar bi mu ñëwee ndar 38 jours la fa Cheikhul Khadim séjourné. mooy weer ak juróom-ñetti fan sax na ko ndar pexe bu ne nag def nañ ko fi moom. lu nekk tuumaal nañ ko ko fa lu ne def nañ ko ko ki bëgg koo xeex magi ndar ñëw nañ dajaloo ngir ñaanal ko intervention xamal na leen ni tubaab bi jàpp ma maa ko jàpp def na fa 38 jours foofee ca ndar kañ fa gënoon na ràññee ci diine xam-xam di sëñ Ahmadou Ndiaye maa bey ku ne xam na la mu waxal sëñ Touba. te moom mi ko wax du taali bi muriid daa nangu ndogalal yàlla dafa wax sëñ Touba ni inni uwaadion Euh, ini owaat yow nabban aaliman wari an man in adatta suyuqal jiili fal awalu maa ngi tàggoog tey jii di dénkanteeg koo xam ne Cheikhul Xadim nat ban sang la aaliman boroom xam-xam la wari an ku sàmm la digganteem ak boroom man jëmm la joo xam ni in adatta sooy lim suyuqal jiili sëriñu génération yi yëpp fal awalu c'est le premier nangu na ko téye ko fa 38 jours mu ñëw fii bisu alxamis Dakar mm-hmm. ñëwaale fekk kooram googu 19 mm-hmm. septembre 1895 mm-hmm. fii lañ ko dugale ci néeg bu xat bu metti bii fii la waxe ni saa su ma ko fàttalikoo damay bëgg a jël ngànnaay xeex ak tubaab bi ma fa indi jihaad ak ñoom iza zakartu zalika al mabita wa zalika al wa subota taarat ila al jihaadi an il maahi waaye lii la ko fi yàlla faye jumaa jaa ngi ko dem visité mhm. mu jógee fii embarqué mhm. ñu yóbbu ko ci tukkib géej mu jullee diggante senegal ak Conakry jóge fa jaar Guinée jóge Guinée ñu yóbbu ko benee mu jóge fa continuer passage am dem Côte d'Ivoire Grand Bassan mhm. ba ni mu duggee Gabon ville def sept naa Gabon ci àll boo xam ni yeneen làkk la ñuy làkk tumuraanke ju ne ñu teg ko ci kaw seexul xaddim te bindal na ko boppam nëbëxtukum toran ala kat bin bada lii xabla an araari dan mu abada mu def fa sept ans ñibbi si 1902 le 11 novembre ci la sëñ ba ñibbi si waat Sénégal ñëw indi ndam di tubaab bi doon bañ moom mu koy saxal def caravane la mu doon bëgg tubaab bi mënu ci dara mu def caravane ni nga ko waxe dikk 1902 nekk fi ba ñu yóbbu ko ndar mu def escale. ume ji koor Louga ca weeru décembre ume ji koor Louga ñeenti fan mu dem bari jàbbu siise juróomi fan mu dem kër sëñ siréloo sànnoo si toog fa ba korite ginnaaw bi jaar na ñaxal sëñ sëñ ahmadou moxtar silla ginnaaw bi jaar na mbàkke kajoor ziyaare baayam bu sëñ ibrahima mbàkke mhm. jox koy sëri caam ci tukki beeg yu bari yu ñuy barkeloo 21 janvier 1903 mu dem Daaru Salaam rakkam ja borom Daaru Salaam borom dërëm a ngërëm ganale ko ngan gi juróom-ñetti fan la bis bu jot juróom-ñaari bis bu jot fukki gëléem ak juróom fukki nag ak juróom fukki xar ak juróom fukki bëy ak juróom ba nar a tër nit kañ naroon tër as camara la tudd bokku teg maam as camara nag day ñaar as camara mi taali bépp sëriñ seex af salamu maam war anta sali mu joxoon ko magam maam Mor Jaara borom saam mhm. moo ne mooy tëdd ñu ray mhm. sëñ bi goreel leen mhm. ba mu fa jógee jàll daarul man naan bi mu ñëwee daarul man naan nag li indi coow li mu ngi bëgg a ñëw ci contexte lu ñu tax a jóg daarul man naan xam ngeen ni sëñ bi dafa amoon këram boroom daaru defal ko fa lépp yàlla dogal na kër ga lakk bi mu lakkee sëriñ bi jóge fa ni bu kenn laal dara dañ bàyyi lépp mu lakk coobare sunu borom mu lakk ba jeex mu jàll ndaam daaru alimil xabir ci sëñ daam abdourahman lo mhm. daal di yebal nag jàmbaaram yooyu ñu defaat kër gi dañ ko defaraat mhm. ci atum 1903 la lool ñuy defaraat kër gi gaaw yeesal ko di ko defar bañ ko defaree ba mu àgg boobu mu nga fekk sëñ bi ndaam mhm. biñ defaree ba mu àgg nag ñoom ñu bëgg wut ay meuble yu ñu installé ci kër sëriñ Tuubaa gi maam Cheikh Ibrahima Fall ak maam Cheikh Anta ak seen mbokk yu baax yi yëpp ca la ñu demee ndar di jënd ci ay meuble ay toogoog ay lalak ndax sëñ bi tëdd ci lal waaye day soxla sëf ci téereem yu tedd yi nga xam mooy alquran bi ñu demee ndar di ko jënd ñëw ba dëkk bu ñuy wax googo mhm. fala am benn pël bu ñuy wax Demba Ngari mhm. agent secret la woon mhm. boo xam ne ci renseignement généraux yi la bokk bi mu ñëwee saaku yi nga xam ci lañu muur tànki lal beeg photo yeeg yooyu mu daal di fexe wax ak ñoom jàmmante ba laal ko ci kaw gëléem yi yi ko sëfoon bi mu ko laalee làmbatu mu daal di jàpp ni sëriñ bi daa yónnee ay ngànnaay ay armes yu muy préparé pour guerre ak tubaab bi ko génnewoon woon daal ni moom kat ba tey dañagul ci yiñ ko defoon daa bëgg a fay yu vengeance la bëgg ca noona ca la ko déclaré mbaaxaan mbaaxaan bind def article bind leeral def rapport ñu jox ko gouverneuru Ndar loolu mooy li tax ñu woowaat Sëriñ Tuuba pour mu leeral ndax yorul ay ngànnaay ca la Buur Siin jële position ca la nag gouverneur woo joxe ndigal. chef de canton yëpp woo seeni jaraaf. ñu def daar daar concertation. ndax nag lii nu waxal sëñ Touba c'est grave. bu dee il prépare une guerre sainte. donc nag ku ne na woo ñi ko wër ñëpp ñu xool solution. ak lii ñu ko waxal nu mu demee. ba ñu dajee que tuumaal sëñ Touba moom day bëgg rek tuuma ga di dëgg. waaye bin dajee booba buur siin xamul sëriñ bi. waaye mbaax. ak di gor mhm. nit ku jara màggala ko Buur Sine mhm. mhm. ndax dignité ak dëkku bi nu waxee ci gouverneur bi mu ne ah kam ma dégg mbiram de Cheikhul Khadim soxlawul benn darajay àdduna soxlawul pañetu àdduna ndax am na lu ma ci xam comme soxlawul daraja yi ak pañet yi nag kooka day defut loolu luñ ko tuumaal képp la di yàqu waaye kama xam déedéet du sëñ Tuubaa moo def loolu bi mu waxee lii tam coow jib na fa xëccoo am ndax ña tuumaal dañuy bëgg ñoom am ndam ci kaw sëñ bi waaye moom nee na yàllaa tax may seere léegi nag tubaab bi wax ni léegi dañuy dem kon visité ji bu ñu visité fekk fa ngànnaay yi ñu koy tuumaal su boobaa yow mii ko tuumaal dañ lay folli sa mbir yàqu parce que c'est grave li nga def accusation la mhm. su fekkee nag fekk nañ ko fa yow buur siin tam dañ lay folli dal ci ko kaw ma ni d'accord naa mhm. buur siin it xalaat xam na ni ceddo dañoo garaaw ndax mën nañ ko tuumaal ba nopp wëlbati ko ci suuf dem gaw kër gaak ay armu denc ko fa te fekk sëñ bi deflu ko fa defu ko fa buur siin daal ni su ma demee itam dañuy wax ni maa gaaw waxee sëñ Tuubaa ko gaawal jindi arme yi yóbbu ko mu yebal benn jaraafam mu demal ko bi mu ñëwee maam Cerno la fa fekk borom daal mu wax ko mbir mi ni mu demee yépp ni ko buur siin a yónnee woon moom kat dafa seedal sëriñ bi te yàlla tax wax ko ni lépp demee waaye daa xam jikkoy ceet dox man nañoo indi ay ngànnaay ci si duggeen ko yëg tuur ko ci kër gi tuumaal ko ci tubaab bi ñu visité fekk ko fi te fekk sëñ bi defu ko fi defloo ko fi moo taxoon mu ne naa ñëw teel leen a avertir borom daaru jàpp ci loxoom ànd ak moom daaru alimil xabiir ñëw wax ko sëriñ bi ba mu àgg sëriñ bi ni ko bu fekkoon ñu ngi ñëw di visité si kër gi nu ñuy war a toll ci xayma ci ay nombre mu ne ko dinañ war a mat juróom benn fukki ñooy visité si sëriñ bi ne kon nañu wut ñu gaw kër gi ñu tolloog ñetti téeméeri fukk ak ñett ñu gaw kër gépp nga xam ne benn pexekat du fa mën a tàbbal dara nga dem gaw kër daarul mën naan gépp waajal kooka sax lañ ci njortoon ñëw na ci guddi di jéem a indi pexe di indi ngànnaay bëgg ko faa def mhm. keroog bi nu ñëwee sëñ daam abdourahman loo moo wax ak moom lu dëgër daal di koy dégager mu dem. wax ja kay ëpp naa wax ci kaw sax. waaw ëpp wax ci kaw waaw. ndax maanaam. dam damay wot rek ci kaw waaw Pape Cheikh di waxee rek mu ngoog. Mhm. ba mu ko defee kon ñoom amuñu ndam lañ doon seet amuñu ci ndam. Mhm. ka defoon pexe yooyu yëpp xam ngeen ni neexut a xuus. Mhm. ndax mbokk la ci nun tey it mujj na tuub. mujj ñëw ci kër sëñ Touba ànd ak moom. ndax keroog bi ñuy visité si ay jaasi lay jël. ñu koy jaare ci kaw sàkket yi di dagg fu leen neex. di sànni téere yi lu ne ñu koy visité. ndax boobu mooy deuxième visite sëñ Amidou Diop. Mhm. visite bu njëkk bi njëkkoon na am. Mhm. tubaab ba moo yónnee wisit lu kër ga mhm. ñuy seet balak doom gis fa téere ak war ga booba boo demee ci gisaaw sakkooru géej gi da xam ni njëkkoon naam moo tax ci biir xasida gi nu jëm axrajtumoo nii lu tax mu indi ko fi'lul maadi bi axrajtumoo nii waxul yéen a ngi may génne waaye axrajtumoo nii mooy génne woon ngeen ma kon dañ ko njëkkoon a génne exilé loolu la ñuy wutaat pexe ñu tuumaal ko. Mhm. ah ka defoon loolu mujj na ñëw jébbalu. Mhm. sëñ Tuubaa am ndam ci kawam. Mhm. ba mujj na mu boole kook maam Cheikh Ibrahima Fall muy taalibeem. mu mujj am Pastef. ndax lislaam xamul euh, départ arrivé rek la xam. mujj na am arrivé bu baax. bokk ci mag ñi. waaye loolu boobu contexte nag ci la sëñ bi taalifi xasida gii. di yaa jumlatan. qad sallasoo bi dalaalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu